ne daara jii ñu dippee Cheikh Anta Diop dey ma ngay bëgg a soobu ci lëndëm université boo xamante ne nii coow du fa jug benn yoon yëglekaay bi di fàttali Senghor ak weeru mai bu tàng ba mu fa amoon ci atum 68 Abdou Diouf ak ay année blanche yu tar Macky Sall dikk ak weeru juin bu tàng jër professeur Aboubacar Ndaw di fàttali ci biir yëglekaay bi coow lekk na mu demee woon ci weerub meek nañu caxat-caxatee kon boobee université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wax ci beneenub yëglekaay mu di Sud Quotidien moom nag ma ngay dellu siwaat ci juróom-ñeenti yi nga xam ne Amadou Ba jël na ko ko jamono ji nag mu soxal conseil interministériel bi jëm ci campagne njaayum gerte gi njëg li ñu ngi ko natt ci ñeent fukk ak juróom-ñetti dërëm ci kilogramme bi campagne njaayum gerte gi ñu war koo door fanweeri fan ci novembre ñuy xaar nag lu toll ci benn million yu toftal juróom-ñaar ci ay tonu gerte bu ñu sukkandikoo ci yëglekaay bi njëg li nag ñu ngi ko jàpp ci ñeent fukki dërëm ak juróom-ñett Vox Populi moo xëy bind ko ci xëtam bu njëkk campagne njaayum gerte gi soxal atum mille 2023 2024 juróomi dërëm la ñuy yokk ci njëg li yëglekaay bi nag ma ngay xam ne ne ay matukaay moom ña ngi ko ciy jël bu baax a baax ngir ñi nga xam ne dañuy jël nag gerte googee di ko yóbbu ci dëkk yi ñu dendal Sonacos ci yëglekaay bi muy sàkku ci kilifa yu Sénégal ñu jël ay matukaay yu am solo ak disposition yoo xam ne dafa jëm nag ci wàllum approvisionnement bi waaye gën a bàyyi xel ci anam bi ñuy amalee collecte yi Tribune yëglekaay moom dikk ci cent milliards yi nga xam ne rek moom la ñu daal di dugal ci wàllu wi mu ne nag benn yu toftal juróom-ñaar téeméeri million ci ay tonu gerte moom la ñuy xaar atum ren ji ñeel campagne yu njaayum gerte bu atum 2023 2024 ñaar fukk ak juróom-ñetti milliards ñu dugal ko ci wàllu subvention yi ci 86000 tonnes am juróom-ñetti fukk ak juróom-benn ci ay junniy tonnes yoo xam ne ci wàllu semence la Walf Quotidien yëglekaay bi xëy daal di dellu siwaat ci xiiroog ngaayoo bi am jamono ji ci diggante waa Benno Bokk Yaakaar Aly Ngouille Ndiaye Mouhamed Boun Abdallah Dionne ak kii di Mame booy Diao lu mel ne xemee kii di Aminata Touré daan na koy yàq nag waa Benno ci biir yëglekaay bi di enquête ba noppi nag moom Aminata Touré ma ngay samp ab laaj ne digganteem ak Macky Sall ana kan moo ci trahir yër leen yëglekaay boobee di enquête Mimi Touré di xamle ci biir yëglekaay bii na ñetti weer képp moo des kon nag nguurug Sénégal moo war a nag jël ay matukaayam ngir assurer kaaraangeeb candidat yi Moustapha Diop dey démb tàng na lool ci digganteem ak député yi ñeer budget ba ñu ko doon nattal ci assemblée national ci pencu ndaw réew ma moom jëwriñ ji ci biir yëglekaay bi Guy Marius Sagna ma ngi ko fanaan ñàkkum industrie yu doy rek fii ci Sénégal moo gën a jur li nga xam ne moo di chômage bu métti bi ci ndaw ñi Mame Diarra Fam feelu ko ca wet ga ni ko yow nag Moustapha Diop xam nañu sax ne nag budget bi ñu la nattal doo ci taxawal ay usine waaye nga investisseurs yi su ko defee ñu mën a taxawal ay industrie ngir mën a suqali réewum Sénégal ci biir yëglekaay bii di Vox Populi Cheikh Bara Dolly naan fa Moustapha Diop yow moom waroo woon doon sax ab ministre amoo place ci gouvernement bi ndax saay su nekk ña nga lay tuumaal te doo ci indi mukk ay tontu Moustapha Diop ni ko yow sa xolay bon waaye nag man moom gàcce ngaa laama damaa weex tàll je suis blanc comme neige xuloo bu mitti démb ci diggante jëwriñ ji ak député di Vox Populi ba tey ci assemblée nationale moom jëwriñ ji Moustapha Diop ma ngay jot a réalisé ci atum 2022 mu ne nag lu toll ci ñaari junne ak téeméer ak juróom fukk ak juróom benn ci ay entreprise def nañu ay jéego yu am solo ci wàllum yi soxna yi nga xamante ne dañuy jël seeni doom di leen dugal ci gaal yi ngir ñu dem ca biti réew dem sax ba di ci ñàkk seen bakkan gëstu bu yaatoo yaatu yéenekaay bii di l'observateur na ca école Tafsir Sall ca diwaan bu Mbour meilleurs élèves yi fa nekkoon yépp jël nañu gaal gi dugg ca ngir mbëkk ca biti réew Le Quotidien yëglekaay dikk tey ci téeméeri at ak fanweer ak juróom-ñaar ginnaaw bi mu génnee àdduna ci jaar jaarub kii di Lat Joor Diop yéenekaay bi dellu ci làqoom ak jaar-jaaram reportage bu am solo la ci amal yër yëglekaay bi ci page huit ak neuf jël leen seeni matukaay Le Soleil yëglekaay ma ngay xamle ay virus yees yu ñu nemmeeku mu feeñati ca diwaan bu Chine jamono ji nag conseil des affaires d'État ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy wattu lépp lu jëm ci saytu gi ñeel Covid ak waa commission nationale de la santé ñoom ñëpp ña ngay jël seeni matukaay balaa mbir yi